mangook yegg si nañu rek ci euh, jàngatu euh, bi jàngat bi weesu na ak Aïssatou Diop Fall mooy jégalu ci ci gan gi euh, minu Mounirou Ndiaye xamee ci bu xamee ci wàllu kom moom la ñu dalal tey Chérif Dia ma bàyyi la rek ngeen door laaj yi su ko defee ñu gën a xuus waaw ni nga ko waxee noonu la kon euh, Mounirou Ndiaye di jàngale koom-koom ca université professeur Iba Der Thiam ca Thiès euh, fa la jógee ñu koy nuyu ziar waa Thiès yëpp capitale du rail sëñ Mounirou ak euh, kurus gi ak dokk bi ah moom vrai <laughs> kii la gaa waroon nañu indi bant bi parce que ah waaw bant bi moom ci la bokk waaw xaj yi dañuy dàqee <laughs> dé dégg ko noonu la neexee rek <laughs> am am na solo li ko waral mooy sommet bi amoon démb ca tugal France daal di fay prix ay njiitu réew yu nekkoon te ñu doon wax naka la ñuy développé suñu koom-koom yi dégg nga discours yi laataa ñu ñëw déjà ci fond bi forme bi le fait que ay njiitu réew dem ci Afrique ngir ñu waxtaan dem ca France ngir ñu waxtaanee naka la ñuy suqalee koom-koom mu Afrique yow mi nga xamante ni sa xam-xam dafa mat ci wàllu koom-koom ban gis-gis nga am déjà ci forme bi mbir ya aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sallallahu ala sayyidina muhammad maa ngi lay sant bu baax ci invitation bi Chérif di ñëwaat ci TFM comme ni ko daan defee à fois pour wax ci lu ñu xam. parce que wàllu koom moom jamono yi dafa mel ne moo xew. te euh, ñun suñu position ci wàllu koom xëy na day nekk loo xam ne dëppoowul euh, dëppoowul lu bari ak euh, ak li nga xam ne moom la ñuy wax à chaque fois. Mm-hmm. waaw parce que bi ñu wootee sommet am na ñoo xam ne tout de suite bu sommet amee rek dañ naan bon c'est encore rebelote France Afrique France kii na. mais bii c'est vrai dafa war a am parce que euh, boo xoolee France li ñuy liggéey xaalis ci Sénégal vingt cinq pour cent des créations de valeur ajoutée français yi ñoo koy créé vingt cinq pour cent. Union européenne seen i entreprise au Sénégal en au Sénégal. je prends l'exemple du Sénégal def fépp. benn la trente quatre pour cent des valeurs ajoutées maanaam li ñu fi liggéey ci xaalis ay entreprises européennes ñoo ko moom. impôts yi 31 pour cent impôt Sénégal ay entreprises européennes ñoo koy fay donc c'est normal que bu ñu tollee fii. Mm-hmm. Euh, Covid bi ñëw normel ni parce que ni ñu Covid bi normalee aussi day normel seen i entreprise parce que boo xoolee activités yi ni mu bese woon bese na activité totale au Sénégal bese bese na activité aux gens bese na yenn activité donc c'est normal que ñoom tamit ñu woote. Mm-hmm. mais ñun euh, pourquoi ma ne ñun suñuy euh, xalaat du dëppoo généralement ak yi moom mooy yu nii am na fi amaat fii. Mm-hmm. woote nañ ci ba tay ay sommet sommet de plus nga bëgg waaw sommet de plus yoo xamante ne bii euh, ñun lim ñu fàttali rek xëy na loolu dëggal waru ko woon a wax mooy la France naa ko n'a pas d'amis elle n'a que des intérêts mm-hmm. donc fii français yi seen i intérêt la ñuy dox te boo xoolee. Euh, am na fi jamono yee lu Macron daan tuddee sentiment anti français. Mm-hmm. du sentiment anti français daal bool la xam nga muus sax boo ko dee dàq bu yàggee mu taxaw jéngu. Mm-hmm. je pense que ñun relation bi am ak France. am ko mm-hmm. européen yi depuis ñu dafa nekkoon ay jaam. nekkaat colonisation. relation boobu moo demul ba jur dara te Macky Sall président Macky Sall sax bi ñëwee moom 8 mars dafa ñëw taxaw li mu ne ci wàllu emploi doxul. donc pour te dire que ñu nërmeel. ci wàllu emploi war ko mën a xam sax yow parce que tey jii xoolal entreprise bu mel ne Sonatel dix pour cent PIB Sénégal la mais moins de cinq mille personnes ñoo fay liggéeyee donc alalu réew mi ci ay poste lay dem donc loolu rek firnde la pour que ne euh, pour ñu régler suñu problème il faut que ñu delloo économie Sénégal bi sénégalais yi. Mm-hmm. bu ñu yaakaar ne rek. Mm-hmm. français moom mooy régler problème Sénégal wala chinois wala kii nañu delluwaat càmbaraat suñu relation ak ñooñu. ñu fexe ba économie sénégalaise ñu doole ko Sénégal moo tax moom waxul plan Marshall New Deal la wax moom Macky Sall dans son discours. waaw New Deal moom mooy li nga xam ne xëy na Roosevelt moo ko defoon après la crise de parce que crise de 1929 a niroog crise bii. pourquoi mu xaw a niroog crise parce que crise 1929 crise pouvoir d'achat la woon ak crise du chômage. te nit ñi dañuy yaakaar ne bu ñu nee crise du chômage rek dañuy ne réew mi amul xaalis déedéet capitalisme moo mel noonu. xaalis mën na am. mais ñi ko yor dañ naan bu ma investir kenn du jënd parce que ñoom yoruñu xaalis bu ñu jëndee donc du caaga ne xaalis bu amul moom moo tax ñu investir déedéet xaalis day am ba bari ci àdduna bi le monde n'a jamais été autant riche àdduna bi am na alal. Hmm. yàlla li mu wax wa ma min daabatin fil ard illa ala llahi rizquha doxal na ko dix fois. c'est-à-dire àdduna bi am na alal. malgré la crise. Euh, àdduna bi mais xoolal Sénégal fii nit yaakaar nañ ne day am catastrophe. Hmm. mais nit ñi dund nañ ba génn ci. te jii nit ñi ñu ngi lekk ñu ngi naan. Bill Gates mi ngi ko ni di financé. Ah, croissance mondiale même bu amee récession tamit ñun en Afrique bi ñu amee récession Sénégal dëkk la boo xam ne def leen 1,5 pour cent de croissance donc ñi ngi ba jaayante. pour mën a taxaw sur le plan économique. est que ñoom kon du seen du seen bopp la ñuy dimbali fi mu nekk nii ni nga ko waxee tey boo xoolee entreprise yu mag fii ci Sénégal lu ëpp sax laay wax ñoom la est-ce que kon woote bi ñu woote nekkul ni seen bopp la ñu gën di dimbali ni ñun. bien sûr xam nga euh, affaire bi li fi xew ñu xam nañ ko loolu ñu bëri bind nañ ko xam nga ki nga xam ne dama koy faral di wax tout temps da daan ñëw sa réew di jël manganèse di yóbbu daanaka fayu ko phosphate mu yóbbu parce que moo la colonisé matière première mu yóbbu euh, pétrole mu jël yóbbu. Mhm. Euh, fer mu jël yóbbu. Mhm. ñi mu koy liggéeyloo sax jamono ba asservissement asservissement humain moo amoon dana daan liggéey tudd na la fay fay bu baax. Mhm. nga xëy benn jour ne ko damaa indépendant li daan ñëw di ko jël si de da nga koy fay. xam nga ki daan ki daan ki daan defar mburu te du fay blé bi nu ko neex lay jaay mburu bi noonu la ñuy woowee compétitivité. parce que boo ñëwee di jaay rek moom jëndul farine ba. jëndul blé ba donc ni nga koy jaay day moins cher yow doo jaay moom mooy jaay. compétitivité ci accès matière première la industrie ci ma accès matière première la aju. bi ñu ñëwee ba indépendant nag il fallait que ñu trouver système boo xam ne. dañuy continuer di accéder ci matières premières yi di mën a exploiter africains yi pour que seen industrie di gën a dox loolu jeu d'intérêt dong la. mu dëggoon sax loolu la wax mu leer nañ heureusement que wax na ko li ci des moom mooy que ni leader africain yi fi nekkoon ab au lendemain des indépendances di bañ système boobu yëpp gis nga fi mujjee boo xoolee Patrice Lumumba. nga xool Thomas Sankara. xool Barthélémy Boganda dañ leen faagaagal pour affaire mm-hmm. lépp Mandela ñu tëj. Mm-hmm. ba ci Thomas Sankara ak ci Kadhafi mi mujj. donc lépp loo xam ne day laal seen intérêt économique bi économie moo fi dox am na benn économiste boo xam ne américain la la génn àdduna à 96 ans génn àdduna les mensonges de l' économie. il montrait que même guerre en Irak affaire économie la. Ah. rey ay nit pour affaire jaay. donc essayer ay armes dem pour mën ko jaayaat ba pare dem am accès ci Moyen-Orient bi ci pétrole bi xaw xam nga nappaate donc yooyu nit ñi xam nañ ne loolu moo xew léegi nag. sentiment anti-français bi ñuy wax. loolu day continuer. Mm-hmm. parce que africains yi bu ñu deful attention. ñu toog ak français yi. ñu ñëpp ñu toog ñu négocier ak ñoom càmbaraat relation yi mu nekk relation gagnant gagnant. ay yeneen ëmët dina fi amaat te ñaanuma ko yàlla mais mën na gën a attaquer inter européen inter français donc il faut que tey jii ñu bàyyi cinéma yi ñuy def. di daje di wax ay DTS ak yooyu ay. voilà te ñu jéem a xool. nan la ñuy voilà comme yaa yaa jàngalekat yow la doon xaar sax nga gind ñu ci gaa yaa xëy waaw xëy ñu naan seen droit de tirage spéciaux yooyu mooy la <laughs> xam nga xam nga FMI dafa ki ne dafa passé à côté sax. FMI moom waaw wax nañ li ñu neex moo xaaral borom xam-xam bi ñëw. génn voilà parce que FMI ñoom depuis le système de Bretton Woods c' est vrai que 1973 dafa xaw a changé ñoom ñoom ñooy fonctionné comme banque banque mondiale mooy fonds bi. banque mondiale xaalis la am mais FMI day jël ay réserve nit di ko denc. donc dëkk États-Unis day am ay réserve. saaru natt la cotisation. voilà ku ci ne da nga la nga fa am. cest à dëkk bu ne. da ngay jaay bitim réew. li ci am ay devises maanaam Sénégal bu jaayee Brésil. da ci am réal brésilien jaay sud afrique am ci rendu sud africain jaay coréen am woon coréen. jaay chinois exportation yi day indi ay devises mais devises yooyu dafa war a wecci. Mhm. la nga bëgg a jënd yow. la ngay jaay bu ko weccu da naan balance bi dafa dafa déficitaire. te boobaa kenn mënut a jël sa monnaie naan da nga la ciy fay donc il faut que mu nekk. ay système d'équivalence international voilà pour que moom léegi nag fekkente ne bi mataloo. ñoom bu leen neexee nga am ay bu leen neexee ñu dimbali la ba nga am DTS parce que DTS ñi ci am droit sax mooy ñi fay denc seen xaalis. Mm-hmm. mooy am droit bu ñu demee ba soxla ñoom ñooy ñëw daan ne dañuy tiire ay DTS. c'est-à-dire que même bu mu fekkoon ne dañoo lebale seen xaalis ba mu jeex foofa am nañ droit tiire en ñu leen di fay. Mm-hmm. ñuy remplacer ñoom ñu tiire donc dëkk yi am doole ñu am droit ci DTS yi DTS yi du monnaie. DTS benn système d'équivalence bu ñu teg la. Mm-hmm. Euh, li koy déterminer moom mooy DTS daanaka dollar la benn DTS daanaka dollar la ni ñu koy déterminer moom mooy dañ koy lëkkale ak monnaie ñeent dëkk juróomi dëkk yi ëpp doole ci àdduna bi muy Europe États-Unis dollar chinois yenn yen yoon yuan japonais yen ak livre sterling monnaie yooyu la ñuy jël lëkkale ko xool DTS bi ñaata la. DTS depuis bi ñu ko créé 1969 ba léegi. 204 milliards de DTS lañ lañ tiireegul. Mm-hmm. deux cent quatre milliards kese muy deux cent quatre milliards dollars parce que loolu instrument la boo xam ne tey jii dëkk bu mel ne Sénégal nga xam ne amoo FMI dara bu ñu ñëwee ne la dañ ci tegal ay DTS yoo xam ne amaat intérêt parce que réew yi moom réserve yooyu dañ ci teg ay intérêt mais boobaa yow bu boobaa sa dette dañ lay gën a contrôler mm-hmm. parce que bu boobaa dana ne mais kii non seulement fayul bor mais mi ngi ñëwaat fii très bien donc problème la boo xamante ne bii ñun du ñu ne baaxul parce que sur le plan conjoncturel. mais Macky Sall moom dafa bëgg DTS yooyu ñoo ko Macron parle de 65 milliards de dollars mais moom le président veut plus. non yi 400 milliards de dollars. 400 bi. Macky moom ay problème lay réglé ay problème Macky bu génnee moom moom président sénégalais la bu demee day xool parce que moom moo fi njëkkoon a négocier. ba daaw 915 milliards yi ñu waroon a fay ci bor. Mm-hmm. ñu ne ko ñu nëgandi mu dem dugal ko ci force Covid 19 xam nga parce que dañoo waroon a fay 915 milliards te 915 milliards yooyu. Mm-hmm. am na ci 366 milliards yoo xam ne intérêt kese la woon. Mm-hmm. pour dire que ñun ni ñuy lebe mm-hmm. am na ay intérêt yu bëri parce que dañuy dem ci marché privé yi marché euro obligation yeeg marché obligataire di fa lebe or que banque mondiale FMI am nañu ay bor yoo xam ne bu ñu ñu ko lebalee taux d'intérêt bi day day day néew mais banque mondiale FMI bu ñu leen leb dañ bi. or que chinois moom da nga naan teel rek mu jox la marché obligataire yi aussi da ngay dem rek gars yi souscrire ñu indi xaalis bi nga mën a kii donc loolu moom facilité boobu mooy tax ñu réewu ci ci crédit yooyu ba detu senegal bi àgg foofu donc Macky Sall daaw il a bien fait ne leen def moratoire moratoire boobu nag la waxaat nañ ko continuer mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ne dañ ciy glisser di wax nañ nañ nañ nañ annulé dette bi non annulation dette li ministre de l'économie et des finances bu benee wax mooy dëgg moom nee na bu ñu fi annulé parce que loolu day indi mauvaise signature yow bu ma lebal rek da nga ñëw ne balaat ma ko du ëllëg du ma lebal donc loolu ministre béninois boobu intelligent daf ne noonu nañ fexe nu ñuy fayee tant ñu ngi justifié de mën nañoo fay ñu dindi critère de convergence yi ay 70 pour cent ak yooyu même bu nekkee 200 pour cent tañ mu mm-hmm. ngi cent France pour cent États-Unis mu ngi Japon mu ngi cent donc te loolu yàqalu leen seen dëkk. je pense que donc loolu moom moo tax gars yi di di wax ne buñ ñu wax nañ ñu baal dette bi parce que man je pense que j'avais discuté même avec représentation FFMI bi. Mm-hmm. mu ne ma non bàyyi ay waxu annulation waxu moratoire. Ah, parce que loolu day wane ne dëkk bi amul doole bu muy fayee borom. loolu mën nañ di yabeel sax na ndax ku lay baal sax dañu jàpp ne suñu ak nootel xam nga lu ma ne na indi yabeel. dinaa la bàyyi xam nga lu tax ma ne chaque jour nga taxaw naan ko baal ma bu yàggee mën na indi yabeel te man tamit dama ne ñun war nañu am suñu suñu autonomie bopp ba war a mën a demal suñu bopp parce que ni ñu ko waxee matière première bi ñun daanaka booy xool liy développé seeni réew yëpp ñun fii lañ koy jëli dem toggaat ko defaraat ko ba mu jekk ñëw jaayaat ñu ko ñu jëndaat ko ci anam yu cher donc bu ñu demee ba bu demee ba tekki ñun dañ ñuy fàtte comme ni ñuy mën nañ ñoo neexal ba am lu ñu bëgg mais bu ba sotti ñu daal di toog donc man je que il wax dëgg neex yàlla ñun aussi ñu bàyyi di ñu dajale rek ci bitim réew bu ñu dajalee nax ñu naan ñu lii lañ leen di defal léegi nii lu tax ñu war a mën a ñëw duñu diñu di xalaatal di ñu xalaatal suñu développement ci ñun la ñuy tibbee ngir mën a développé man loolu laa loolu laa def seen résilience réew mhm. di woo seen privé mais entreprise française yi nekkoon fii ñu leen di jox suñu marché public bi résilience amee est-ce que dégg nga ñu génnee benn dërëm pour ma ñu ci dara dañoo dem seeni i réew négocier ak seen i kii ndànk génne seen Europe rek génne na presque presque quatre cent milliards de dollars sept cent sept problème États-Unis génne na deux mille milliards mais loolu loolu ko may. parce que dañoo yor seen monnaie bopp. bu leen neexee dem defar seen i mooñ seen xaalis génnee planche à billets distribuer ñun nag ñu ne ñu monnaie bi dafa dépendant bon voilà léegi yéen budgétaire je pense que même Amadou mm-hmm. amuñu benn instrument de politique budgétaire maanaam suñu budget lañu am. amuñu benn possibilité pour monnaie sur le plan monétaire ñu intervenir te loolu dafa am piège parce que ñun dañoo dépendant sur le plan monétaire yooyu yëpp ñoom duñ ko wax de dañuy ñëw rek jàpp ay président def leen ay genre cinéma ay marionnette mais fii la fi ñetti président geddoon fii dem ñibbi mais sëñ Ndiaye euh, bu ñu jëlee également leb bu nu lebee ba pare ñëw delluwaat ko ci benn entreprise française parce que boo seetee investissement bi ñu def ci terre bi mu tolloog mille milliards loolu aussi également est-ce que du delluwaat rek ci France parce que ñun dafa am ay secteurs prioritaires yoo xam ni dafa sooxe boo seetee sànq ngi ngi wane benn genre euh, ay euh, ni mu tuddati ay classes yoo xam ni euh, amul sans abri la ay abri provisoire la est-ce que loolu aussi ñun amuñu problème priorisé Eh, bu ñu lebee fan la ñuy def xaalis bu ñu leb ci ay priorité au lieu que ñuy dem ci terre boo xam ne 1000 milliards lan fa def te léegi ba léegi dawagul. 3 mm-hmm. ans ngi nii dawagul ñu koy delloo. ci entreprise française xam nga xam nga fekk ko fi am. xam nga xam nga foofu dañ ci arrêté il faut que le président Macky Sall. Mm-hmm. ñu wax ak moom mu bàyyi li muy def ci wàllu investissement public yi ci wàllu infrastructure yi parce que man dama ne leen lii yëpp ñuy def dakaar suñ ko sotti woon ci biir réew mi kenn du soxlaati Dakar ba muy soxla lii c'est-à-dire yi ngay def nii pour ne Dakar ñëpp fi lañ war a nekk logique boobu mili 16 milliards yi nga def ci pont bi Robert Fall bi boo ko yóbbu woon beneen dëkk def ko fa am na fa ay sut investissement structurel yu fa téye nit ñi ba duñ ñëw Dakar def indi embouteillage pourquoi ay téer 1200 milliards ci benn gox plus de 4000 milliards en 12 en 9 ans nga def ko ci benn dëkk kese te pourtant am na yeneen pense que moom ñi koy ñu wax moom ne ko yaa autre chose. mën nga def leneen loo xamante ne bii mooy gën a mu mooy noppal doo jël BRT ay deux cent soixante dix neuf milliards di ko def ci benn gox jëlaat ay PACASEN ay Promoville yëpp nga mm-hmm. concentré ko Dakar PUDC bi dem xëy na mooy génn ak piment mais yu ci bëri Dakar ki la yem donc loolu il faut que président aussi ñu ne ko vraiment. Mm-hmm. il faut faire un a et un calcul économique. Mhm. gis nga xaalis li ngay wax priorité da ngay arbitrer. mais su ma amee sama million. prof moderniser capital bi tam mun cee ñàkk. infrastructure aussi day yokk koom. non loolu xam nañ ko mais dañ ne il faut mu def arbitrage. Mhm. arbitrage moom mooy lan moom mooy est ñun dañuy continuer rek di entretenir la macrocéphalie de Dakar wala dañuy jël suñu fit comme Macky Sall mu amee fit bay defar ay autoroute di defar ay pont na am fit gis nga bu defoon loolu dina gis ne Dakar day nekk dëkk boo xam ne embouteillage dootu fi bareeti parce que nit ñi dootuñu soxlaati Dakar ba fi ñëw def groupe boobu su ko defee Dakar day nekk dëkk beneen capital mën a am ci dëkk bi man pour man beneen capital bu dul Saint-Louis du Ziguinchor du Thiès mën a am ci dëkk bi beneen capital boo xam ne mën ñu ko tabax nit ñi di fa soxla donc te loolu alal yi ñu def Dakar yëpp mën a dugg foofu beneen bi moom mooy nga ñun la seen i entreprise ñooy dañoo ñëw ne waaw autoroute bi et puis autoroute bi ku ko estimé à 417 milliards parce que 130 kilomètres à 417 milliards presque 3 milliards par par par kilomètre. loolu problème la. chinois bi mu ko tabaxee est-ce que effectivement loolu la ko tabaxee. Mm-hmm. pourquoi entreprise sénégalaise tabax ko donc même type de coopération yi. yi ñu doon def ak yi la ñu di di kii je je l'ai même écrit ma ne nous nous débattons pour génn ci griffu luu bi occidental bi mais ñu ngi taxaw ci ganamu gimuñu. gaynde gi muy muy si <laughs> te loolu ay reconstitue ay recommencement la yoo xam ne fi mu ñu jëmee ñun xam nañ ne dañuy ñëwaat fii dans 30 ans di waxaat la même chose naan sama. parce que gars dañuy cible France teg ko gën rek mais li nga wax ni Turquie yeeg euh, chinois yi presque ñoom liñ fi am. bari na lay lay. cercle Sall gis nañ discours am aussi saa su nekk moom su ma juumul yéen koom koom ñi xam-xam màcc koom koom da ngeen ne UEMOA daf ko am fu mu ko fixé ci 70 pour cent mais moom bëggut sax barrière est dafa bëgg rek ñu bàyyi amatul limite boo xamante ne dañ bi fii la war a yem waaw Macky li mu loolu lu normal la parce que à chaque conjoncture les mesures conjoncturelles pour régler le problème loolu conjoncture bi bi nekk nii soxla parce que ñun bor bi dañoo yaakaaroon ne ren day ñëw moins de 53 pour cent mi ngi ci 67 pour cent déficit bi indi ko ba 3 pour cent pour 2020 vraiment bi ñu voté woon fin fin 2019 bi ñuy voté budget déficit bi 3 pour cent la woon respecté critère bi mi ngi ci 6,7 pour cent maintenant encore yéegaan na. donc il faut que plafond yooyu aussi ñu nëgandi mm. li Macky wax mooy def ne wuppul sax ñu éliminer ko ah def nañ ko suspendre ba 2024. kon critère de convergence yi ngay wax dafa obsolète quoi. dañ ko que il faut ñu xoolaat yooyu yëpp Macky Sall il raison parce que man pour man bor le professeur Moustapha Kassé dañ koy invité des aussi. parce que mag la te xam na li xam na li muy wax. je mm-hmm. pense que moom à chaque fois day daf ñu moom moom moom sax bokk na ci ñi ma daan wax ne bor bi fu bor mënee justifié rek nañ koy dugal fu baax rek. Mhm. tant ñu ngi koy dugal fu muy jure lu ñu mën a fayee rek. Ah, war nañ mën a bor suñu suñu ko nangulee suñ ñu ko nangulee parce ñi fiy lebale bari na àdduna bari na alal nit ñi fiy lebale bari na suñ ñu ko nangulee war nañ mën a lebal rek moom dafa jàpp ne te loolu mooy li jub. dafa jàpp ne war nañ mën a leb tant ñu ngi koy dugal foo xamante ni dañuy mën a fayaat. Mhm. mais ñun li ñu sonal

fii je vois beaucoup de débats au Sénégal ay politiciens ñoo fi défilé day ñëw tey après gannaaw suuf mu ñëw dans trois semaines wax parce que y a un débat politicien ici les man ñi ma dàq jàng économie Sénégal junni lañu te pourtant man damay ñëw accepté mais am na ñoo xam du ñëw toog fii parce que débat yi leen di boole duñ mën a dévoiler xam parce que aussi il faut Sénégal ñu pose le vrai débat xam affaire bor ñu ngi ci biir dëkk bi xam nga ma wooye dama la wol professeur Babacar Sène parce que affaire mm-hmm. DTS bu ñëwoon fi dina la ko càmbaral wax la je pense que y a des spécialistes yoo a wax mais il mm-hmm. Mm-hmm. nit ñi parce que man li ma la wax sànq ci affaire Lumumba nangam nangam li fi nekk xam nañ ko xam lan moo ci des ku am fit ku ñëw taxaw boo waxuma la ay discours yu mel ne discours Sonko wala ay discours Jean Marie Sagna c' est des discours quand même ah, xam nga am na discours yoo xam ne defarul nga tey jii dama lay expliquer. ñooñu ci yoon ñu ngi fi cité lan bokk. Ah? non non xam nga xam am na am na discours yoo xam ne baaxul. yow Balla Gaye bu doon romb sa buntu kër ne fii laay jaar nga ne ko du fi jaar da lay mboq ba sa baat bi damm mu continuer tubaab yi dañ fi am seen alal moom ko. mu leew leen doomu nag parce que dañoo liggéey ba am ko doo ñëw fii nga naan ay dégage rek non yooyu c'est des discours creux il faut que nit ñi bul bañ ko la saaga c'est-à-dire que. bu la nee saaga da la saaga ci dëgg xam nga man bañu ma. toog fii ne discours Sonko na ko defaraat parce que du discours bu defar réew. réew boo ko dee defar dafa am ay maslaha am naa nga même yonent yàlla Muhammad dafa def concession waxtu de Hudaybiya pour taxawal état concession la def te bu doon rajaxe ñëpp il a été en influence numérique duma leen 29 combats. duma ñëpp ku ne mu rajaxele bi muy ñëw di def pacte d'Oddi bi jéem màkk gars yi dañ doon dem di ko dabas naan man bokkuma ci ku ne di jéem a tuub mu ne non man dama fi ñëw pour wax ñu dund ci jàmm je pense que donc il faut que aussi adduna bi tubaab bañuñu ko bañuñu chinois xam nañ bëgg ñu toog mhm. pas da ngay dégager déedéet gis nga li far français yi am doole la pour ñu mhm. parce que ëllëg bu ñu naree attaqué dinañ ñëw taxaw ñoom xam nga tey jii bu amoon benn problème benn problème militaire wala ab benn dëkk ñu bëgg ñoo daa France dina ñëw toog bien foo xam ne sa vingt cinq pour cent yaa ko moom on comprend non président bu fekkee dañ leen di critiquer ah? benn problème lañ am moo dañ di nax rek ay li ma wax la baaxu fi man États-Unis baaxu fi Agora baaxu fi déedéet. man dañ leen di nax ba jàpp ne sunu président yi ay marionnettes. non ay marionnettes du marionnette xëy na ñàkk choix su ma la déggee comme ko déggee su ma ko déggee dafay dafay am solo li mu wax mooy. par exemple lépp loo xamante ne dañ koy def collaboration bi ñuy wax naan longues années vingt ans de collaboration mais li gën mooy lépp loo xamante ni dañ koy collaborer moo xam en matière de dette moo xam en matière de euh, d'échange ak yooyu na nekk loo xamante ni dafay nekk partie gagnant gagnant ku nekk gis gisi sa bopp. Mhm. pour man loolu moo am solo. mais parce que dañuy dajale li yenn saa tamit noonu ngay gisee dañuy dajale xëy na jàpp ni mën nañ dañuy dimbali ci lenn mais en fin de compte ñoom ñoo ñoom ñoom ñoo ciy gën a bénéficier wu. ñoom ñi ngi ñëw Covid am. Mhm. ñu dem mooñ seen xaalis parce que ñoo ko moom def ko ay bii planche à billets di ko distribuer ñun ñu ñu du ngeen ko def ba pare ñu naan ñu DTS loolu ay naxaate la même bu fekkante ni bii conjoncturellement dana régler sa problème loolu problème la. Mm-hmm. loolu naxaate la mais loolu loolu aussi loolu aussi maanaam gis-gis la. gii Marius Sagna boo ko déggee muy wax même bu fekkee du acteur politique danaan mais dañoo war a dem gagner suñu monnaie bopp. am sunu monnaie bopp loolu aussi combat boo xam ni la je pense euh, war nañ koo mënee. xam nga gii Marius Sagna dañ koy war a encadrer rek. discours bi mu defaraat ko. waaw mais gii Marius Sagna xeex na fi bañ def décret pour la grande distribution loolu lu baax la. parce que groupe de pression yooyu li ñuy wax noonu dafa bokk ci li président yi di calculer. mais nag discours moo tax boo discours mhm. a yi. defaraat ko ba mu nekk discours yoo xam ne dina adapté wu. mais nag mais nag monsieur Ndiaye yow da jàpp ni sunu président yi nga ni sax Macky moo ci tane ay marionnette lañu. Mhm. ñi wóotu sax pour nekk président ñooñu moom euh, il faut ñu soññ leen. ñun ñun fu ñu jëm kon ah, ñun am nañu problème yàkkamti. non je pense que suñu <laughs> je pense que actuellement nii. Eh, man gis naa sax ay yeneen problème yi am ci biir dëkk bi gis nga fi ñu toll nii politiciens yi ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci acte bi. 61 année ngi nii ñoom xam nañ ne échoué nañ xam nga le 8 mars na ko. mais ana militaires yi summi yi nga xam ne nekkatul militaire ana seen candidature ana arabisants yi. Sénégal am na alternative na am ñu dëgër fit génn parce que politiciens yi ñi ngi fi nekkaat di wax ay ay ay coalition Idriss Seck ñëwaat ñu indi ay coalition bëgg a ñëwaat indiwaat ni même personnes yi tu les vois depuis combien d'années ñu nekk di def jéem mënuñu ils ont atteint par le syndrome de Peter le niveau d'incompétence ñu continuer ñu leen di révolter chaque jour ñu ñëw nit ñi di teg seen bët xam ñoom dañu yaakaar ne Sénégal nit ñi dañu yaakaar nit ñi dañoo mais les sénégalais le milieu universitaire les intellectuels gars yi xam nañ li xew ci dëkk bi dañuy toog di observer. man li mu bëgg laaj mooy emploi ngeen

aimerais quand même am ci sa xalaat yow mi nga xamante ni quand même ah, ci wàllu koom. nga waaw man temps yii bind naa benn article bu ma def IGFM l'emploi c'est une mécanique c'est pas des artifices boo ko tiré après autonomie bi mu dee Sénégal 80 pour cent entreprises yi fi créé au bout de deux ans dañuy tëj parce que amuñu amuñu autonomie kii wuñu dañuy toj tas xam nga même mécanisme la ñuy indiwaat depuis programme Maîtrisard 1983. le 18 janvier opération Maîtrisard oui. ñu ñëwaat les groupe opérationnel xaw ma étude de projet ñu financé 4500 jeunes créé ay emplois mais taux de recouvrement ñaata la woon 2 pour cent crédit revolving ñu ñëwaat créé FNPJ échec échec FPI échec ANEJ ANPEJ fonds six fonds jit gisagoo résultat parce que man président moo ko waxal boppam donc il faudrait que aussi le plan de l'emploi xam nga man affaire bi du ma ne la yow Serif demal nga bay soble ngay bàyyi soble ba pare mu bàyyi benn espagnol mu indi fi soble espagnol di ko jaay. du ma ne la dama ngaay nga defar dàll créer benn industrie artisanale di defar ay dàll pare non seulement état bi dina jox ay marché public nga mën a gagné def ay botu botu gendarmerie bu ko dee def day dem Israël defar ko fa ay tenue uniforme au lieu mu ñëw la dénk la ko yow mu dem dénk ko keneen mais duñu sax encadré pour nga normaliser wu pour mën a def concurrence a absorber ba pare dañuy bàyyi ay dàll mu dugg ci biir dëkk bi nasaxal économie réew mi donc projet yi ñuy wax te ko jeunes yi def mën na réussir su fekkente ne bi état bi am na protection bu taxaw plan de protection parce que OMC mu ngi fi normes yi ñu ngi fi mais dafa am plan de protection de l' économie locale sinon li ñuy def nii yëpp du am résultat. Mmh. mais entrepreneuriat rapide yow gëm nga ko est-ce que entrepreneuriat mën na rapide wax na ko ba pare ah, entrepreneuriat rapide loolu c'est que slogan la rek slogan la rek pour dire aux gens que président fast xam nga fast track moom boo ko waxee il faut nga jéem wut ay slogan yuy permettre nga mën a. gaaw kon waxtu wi ñu seen université ba problème bi réglé na parce que bëri na coow trop. non université bi waaw université Thiès moom amul problème benn problème la am mooy problème infrastructure. ñu koy jaajëfal dellu bi ñu def le tout pour que affaire yi mën a. dellu di ko jaajëfal bu baax a baax.